jërë ngeen jëf mbokkeen tox na du ñuy topp ci Medina TV ak ci Siwal ko TV ñu ngi leen di nuyu di leen ziar ñaanal leen jàmm waaye sàkku ci yéen amaak mbégte ak contentement jàkkaarloo ak yéen comme niñ koy defee saa su nekk Medina TV Siwal ko TV di leen jaajëfal ci ànd bi ngeen ak ñoom ngir loo xamante actualité la ci réew mi ak ci bitim réew ngeen di ko mën am à temps dañ koy dox kon ak waxtaan bu ñuy sekk ak idali faramaareen yaakaar naa ne miin yaakaar naa ne moom rek a leen ñor waaye itam euh, waxtaanee lépp loo xamante ne carrière la ak projet Wally Ballago Seck waaye li nga xam ne itam xew na ci diggante bi lépp rek incha allah dinañ ci ñëw ak yéen gën a yaatoo waaye moom itam comme ni mu ko waxee rek mbëggeel gi da topp ba ci anniversaire bi ginnaaw safoo gi muy safoo Wally Ballago Seck muy feete anniversaire am ni ki tey euh, kon tombeeg tey di 26 Wally di ko feete le au non de toute l'équipe de la Médina TV et de Siweul ko TV ñu ngi lay ñaanal bu baax a baax anniversaire bi nga yàgg ko fekkee at yu bëree bëri ñaanal la gudd fan ak wér tawféex ak tay siir barki Serigne Saliou mi ñu bokk yaakaar su ko defee ñu nuyu la bàyyi nga nuyoog mbokk internet yi ñu wéyal suñu waxtaan. Euh, macha allah salaamaaleykum Médina TV salaamaaleykum Siweul ma TV maa ngi leen di siyaar yéen ñëpp di siyaar jaara euh, di siyaar seen DG Saliou di siyaar aussi sama xarit sama lépp di siyaar sénégalais yëpp di siyaar képp ku nekk ci àdduna bi. di wax yal na ñëpp am jàmm ci barke alxuraani karim tey nag muy euh, bésu mbégte euh, buy sama jour anniversaire damay santaat yàlla di santaat yàlla di santaat yàlla ba ma yàlla fekkalee tey ma ma ñëwaat sama bésu juddu di sant yàlla bu baax di wax yal na ñëpp am jàmm ci barke alxuraan di la aussi itam di la remercier di la wax yal na sa ñaan nangu ci barke Seydina Mohamed. Euh, nuyoo bi am na solo idal idali dañ koy door ak li nga xamante ne waxtaan bi ñuy sekk mais balaa ñuy xuus ci li nga xamante ne moom mooy bis bi anniversaire yi ak li nga xamante ne moom moo war a xew dañu gellu dellu ginnaaw tuuti rek gis nañ ne ko Wally euh, semaine passée génn na pour la première fois euh, dem fi nga xamante ne moom mooy Guinée ginnaaw absence bi nga xamante ne toog na ko trois mois kenn gisu ko mu nekk rek ci li nga xamante ne moom mooy ay yitteem doon dund dëyam tranquillement gis nag bi mu demee Guinée réaction bi nga xamante ne Guinée am nañ ko bi mu atterrir accueil bi nga xamante ne am nañ ko mu mel ne dañ ne ko autorité wala président moo ñëw ci dëkk bi. aw jaara loolu man du ma ko ne guleet man mi nga xam ne xam naa Wally Wally rek laay topp ci showbiz wala laay topp ci musique sénégalaise bi xam naa ne euh, waxuma la Guinée mais Wally bu demoon beneen réew itam noonu lay demee parce que demaguma Europe mais sous-région bi laay wax. parce que artiste bala nga nekk artiste dëgg dëgg dëgg foog nga atteindre li nga xam ne moo di sous-région bi ba pare. te Wally ku nekk xam na ne sous-région bi ñëpp ko ràññee sous-région bi ñooy déglu ay musique am tey boo demee Mali Guinée Côte d'Ivoire comprendre nga Niger fu nekk tey macha allah Wally teg fa empreinte tey macha allah bañ koy déglu kon ba mu fa demee aussi tam ñu ko teeroo ku nekk gis na ko jaruma ci waxaat ku nekk xam na ne bi mu dugg see dañuy yàpp ne président mooy dugg si wala premier ministre wala un roi vraiment muy noo xam ne moo ko liggéey ci musique sénégalaise bi tey moo fi mujj nee na waali Waly la te woyagul day doog a door tey moo ñëw fekk ay magam fekk fi ay pàppam papam marqué empreinte gëm boppam jël yoonu boppam kenn jàppale ko kenn buusewul ko kuréel yàlla su suñu borom amul kenn ku mën a taxaw ne maa jàppale Waly ci musique am amul muy produ producteur muy keneen a keneen moo ñafe boole daqaaram ak sidéemam ba tey mu àgg fi mu àgg tey muy dërëmam ak ñaar dërëmam moo tax mu nekk gaynde kon tey dafa liggéey ci li nga ne moo di musique sénégalaise bi tey àdduna fu mu dem waxuma la Afrique mais nit ñuul yi lañ koy topp voilà. am na solo ginnaaw Guinée boobu bi mu ñibbisee mu mel ne dafa ànd ak coow ndax gis nañ mu ñibbisi kenn di jegeñaaleem su ma jumul di porte parole muy Omaro euh, mu def sorti daal di rek ne ki nga xamante ne moom mooy Wally dañ ko war a cotiser utal ko li nga xamante ne moom mooy jot privé euh, bi nga déggee yow loolu noonu rek ban jàngat nga ci am. waa jàngat bi rafetlu ko parce que euh, maa ngi nuyu Omaro di ko nuyu bu baax di ko ñaanal jàmm yàlla bàyyi ko ak Wally Balago Seck vraiment comme ni ma waxoon sama waxu démb mooy sama wax di waxaat. Omaro dafa ñëw ci Wally yokk mais wàññiwul te ku mel ni Omaro ak Baye Zal dinaa ci ñëw ku leen am ci sa musique da leen war a parce que xam naa seen i qualité comprendre mais loolu mu wax noonu Omaro xol bu mu am ci Wally la Omaro xamu noonu kam mooy Wally wax na ko benn conférence presque kër Papa Thion nee na xaw moon mooy jëmm ji waaye ba ma ko xamee dëgg dama koy jàpp dama ko yemale kenn Omaro yi mu wax yu bëri ba mu nekkee beneen cas ba daa daa xamu noonu kan mooy Wally mais ñun xam nañ kan mooy Wally kon Omaro xolam la waxee ak yëg-yëgam ak maanaam cofeel bu mu am ci Wally te Wally loolu Omaro wax jet privé Wally euh, moom waxuma la ay kañot wala ñu dimbale ko mais Wally rek moom mën na am li nga xam ne moo di euh, cinq jet privé xam la moo tax parce que Wally xolam la ko yàlla di fay te yàlla may na ko wërsëg macha allah te wërsëg bu ko yàlla may da koy bokk ak doomu aadama yi Wally tabaski li muy joxe ci ay xar rek ak xaalis jënd na ñaari jet privé parce que man xam naa ci dara gétt ga fa nekk man ak poko xaritam poko may dégg du leen fenal man nee naa du ma wax ci Wally loo xam ne gëw ma ko du ma loo xam ne aw ma ci preuve parce que damay toog ak ñoom di xam lépp lu ñuy def ci lu baax waal li muy def ci lu baax moo ëpp li muy def ci suuf kon waali jet privé bu ko bëggoon suba suba mu am ko mais nag dafa am leneen lu ko gën a ñor mooy dimbala jaamu yàlla te li muy jënde jet privé te ko jaamu yàlla moo ko gënal mu def ko mais itam Omaro li mu fan si mën nañ ko ci benn jour daan li leen ñaar. nit lu koy lu ko jënd xaalis. xaalis moo ko jënd xaalis kan moo ko joxe yàlla ah xaalis moo ko joxe yàlla moo ko joxe te xaalis chiffre la jar privé lu forte chiffre la jar ci xaalis yàlla du jox mbaam xaalis du ko jox xar du ko jox nag kan la ko jox doomu aadama te ñun ay doomu aadama lañ te ay julit lañ te suñu borom fa muy tibbee du jeex te ku mu tibbal nga am kon waali am na lu ëpp jet privé fant yi mën nañ kuñ defoon fant yi kenn ku nekk defoon mille francs sax laa la wax waali am jet privé barke alxuraan kenn rek mën na ko jënd peut-être gars yi bëri na Magadou Konté from Gambia yaay ci Wally Ballago Seck yaay ci Ramdan Magadou Konté borom États-Unis rek mën na jëndal Wally benn jet privé exemple mu ngi may bàyyi mu may dégg Wally may dégg du ma bàyyi ma fenn kooku ni mel ci Wally doon jet privé la Wally bëgg tey tey tey ko comprendre nga kon yaakaar na loolu euh, sac bu Omaro am la ak bëgg-bëgg ak fans yi te fans yi ñëpp ci d'accord comprendre nga noonu bu amul am nañ xol bi man mii su ma amoon tey tey tey balaa ngoon a jot bala ñu dem waali jat privé la yóbbu soirée almadi kon amuroo li mu wax dafa am yëg-yëg ci waali te dañ koy nangul te dañuy ànd moom ci loolu bu ñu ubboon benn kañot tey balaa 24 heures incha allah jot privé mi am waalee ni mel xol benn toll waale lu mu bëgg incha allah ci kattan yàlla loolu itam la loolu laa la wax waali nekkatul fama ren nekkatul ay Italie wala kenn waali waali àdduna la buñ ubboon tey tey ne dañuy jëlee jet privé du Faramaren rek maanaam waxtuma Faramaren waali dépassé na comprendre nga waali waali àdduna la waali international la ku ne ci bokk ku ñëw bokk nga ci sénégalais yi gambien yi euh, nit ñu ñuul ñi nit ñu xong ñi ñëpp ko bëgg kon waale bu ñu ubboon di nga gis tubaab bi ci dugal sax xaalisam waalee ni toll yàlla ànd ak moom yàllaa ko teg ci kaw mu raw ci musique sénégalaise bi voilà. am na solo euh, li nga xamante ne kàddu yi nga xamante ne yëkkati nga ko waaye dañuy rester foofu bii mooy premier. di Waly eh, Guinée mooy première sorteem ginnaaw bi mu toogee trois mois yoo xam ne peut-être nekkoon na ci tiis kenn gisu ko woon eh, yéen ñi nga xamante ne yéen a nekkandoo woon ak moom foofu yan impression ngeen am ci moom eh, bi ngeen ko gisee pour la mu taxawaat sur scène moom Waly ndax gis ngeen ci moom changement wala lenn loo xamante ne rek wane na ne am na lu manqué ci moom. waaw bi ma ne Guinée sax Allemagne la ñu ko def sorti ginaaw bi suñu maman Guinée àdduna mois ñu troisième mois bi ñu tegaat ci Korité ñëw. muy toog 3 mois tëggul premier génnam Allemagne la mais Wally doo gis ci moom lenn ci kanamam lu mooy ak gëm yàlla li nga xam ne nag kii dara am manqué na ko surtout bi mu woyee morso yaayam bi vraiment man damaa jooy waaw jege kiraay dama sama xel dafa dem fu sore sori ma xam ne tey man xam naa lan mooy ñàkk yaay ak loo mën di am ci àdduna parce que tey euh, yaay dafa for ci doom loolu rek laa sentir ci moom yërëm ko yërmande ci moom yërmande boo xam ne du xaalis Wally am na xaalis macha allah yàlla teral na ko am na oto am na kër mais yërmande bi ma am dama ko xam parce que tey ñàkk naa yaay man ñàkk naa papa mais peut-être kenn teguma lu metti mais Wally dafa ñàkk papa ñàkk yaay di def lu baax ci réew mi ñu koy teg chaque jour aqiqa lu metti loolu rek laa ko yërëmee du leneen comprendre nga kon Wally loolu laa ko yërëmee ma ba mu génnee tey xam nañ ne fan si xam nañ ne Wally euh, toogoon na trois mois liggéeyul mais mu ngi liggéey lu am solo macha allah ci musique bi pour jox ko fans yi parce que xam na ne moomul boppam Wally dafa sonn moomul boppam Wally amul vie mënul sax dallu parce que dafa gëm musique dafa gëm ay fansam daa bëgg saa yu def soo rek fokk mu jox fans yi li ñu bëgg comprendre nga moo tax muy taw ba dee Wally du toog benn yoon ba mu ñëwee dafa toog trois deux jours commencé répéter si comprendre nga kon Wally euh, Euh, dafa yéeme daal Wally Wally Wally beneen affaire la man su ma sax barke Serigne Saliou. Mm-hmm. suñu tawee ci ci jet privé bi tuuti rek balaa ñuy dugg ci ci anniversaire bi le fait que tey proposition boobu am ñu dégg ñenn ñi nga xamante ne peut-être ay jegeñaale Wally lañ ñu génn daal di àddu ne peut-être bi yéene nañ ko ko mais Wally am na leneen lu mu tàlladul loolu na gën a focus ci social ndax dëkk bi dafa metti et ban gis-gis nga ci am. waaw jaar moo doy goo sama wax loolu laa wax sànq ma ne ma ma ne waali bu ko neexoon suba suba mu ja jënd jet privé mais li ko gën a amal solo mooy lépp lu mu am mu jox ko askan wi ñëw si doole mais su ko neexoon mu jënd jet privé ni mu jënd ay oto comprendre nga am na ñu ko jet privé mais li ko gën a am solo mooy néew si doole yi waali barke Xuraani Karim li muy def ci euh, hôpital yi li muy def ci ordonnance li muy def ci ay location barke alxuraan kenn xamul nu mu toll mënul defal ñëpp nag parce que yàlla rek mënul defal ñëpp mais Wally lépp lu mu am barke alxuraani karim jox na ko jaamu yàlla yi ba mu jeex tàkk mu toog di xaar yàlla joxaat ko kon talagul jet privé ni muy def di dem aéroport bu demee bare voyage dem aéroport dagg billet toog xaar loolu moo ko gënal moo ko gënal parce que day ci jaamu coono boobu comprendre nga mais tey jet privé c'est euh, waroon na mu am ko parce que tey ku xam ne Wally Seck ay dotam du toog Wally Seck deux jours mënu toog toog ci këram. mais na koo am. mais ndax soxla na ko. waaw moo la loolu ma wax soxlawu ko essence soxlawu ko soxlawu ko essence parce que waa nii la mën a dundee moom Baye Fall la oyofal na bopp ay jat privé ak affaire yooyu moom Baye Fall la gars yi ñoo ko yóbbu benn niveau bi sax souvent mais moom day wàcce boppam comprendre nga comme manger comme ñëpp parce que dund na lu metti waa li maanaam dafa galeeru xam lan mooy ñàkk loolu moo tax mu mën a dimbalee xanaa mu ne am ñoo xam ne xamuñu waali dañu yàpp ne waali fii sa papa la waali toog na añul waali toog na réerul parce que doomu banlieue la woon comprendre nga mu doon maanaam papa amoon na lépp de mais maanaam dafa ñafe fam dund lu metti waale fanaan na sax ci ay ci ay ay tabax exemple fanaan na ci àll bi def na lu nekk dem na moodu moodu ji amul dara ñëw xam nga mënul sax am billet euh, direct Sénégal mu dagg jaar ci ay kii waale dafa yàgg mën a joxe li ma li ma jot ci ay nit ñu ne ma Wally moo ma defal lii kenn xamul ni mu toll te boobu Wally sax boobu amagul dara. Mm-hmm. gis naa benn paa Kër Masar ñu tase moom may wax ñu wax ba ma tudd Wally mu ne ma Wally ba ma koy xam lu ndaw la mos na may 60 000 ma jënd xaru tabaski mm-hmm. te boobu goyeegul sax laa la wax mu ngi doogi door penc ma je comprends nga kon Wally maanaam dafa dund ci social dafa judd ci social mais ay euh, jet privé gars yi bëgg nañ rek wax ni mais nekkul ci xelu Wally instant nii parce que dafa oyofal boppam. ay ca leeral yooyu am na solo mal nag li nga xamante ne moom mooy anniversaire am mu def ko trois dates yoo xamante ne da ciy bëggalante ak soppe yi euh, surtout namm gi nga xamante ne namm na ko soppe yi gëj nañoo wayante gëj ñoo jëflante ndax yi nga xamante ne moom moo fi jaaroon euh, tey di la vingt 26 mu koy def journée bu njëkk bi nga xamante ne da ciy bëggal fan si Wally Ballago Seck premier anniversaire am après décès ay waajuram bale passé peut-être premier anniversaire am la après magam fekkeewu ko ak papaam mais bi day nekk premier anniversaire am boo xam ne day dagg gatoom sans yaayam sans papaam ak sans sœuram waaw ñu ciy sant yàlla bu baax a baax gis nga euh, premier anniversaire am yaayam fekkewu ko beneen bi encore magam fekkewu ko muy loo xam ne maanaam nattu la yàlla waali yàllaa ko teg natt te nangu na ne nattu bi yàlla moo ko ko teg du doomu aadama moo ko teg Euh, mu gëm yàlla trop nag waaye ñu ci sant yàlla ñu waroon ko def CICES mais euh, ñu annulé ko comprendre nga defee ko li nga xam ne moo di Vogue du ma sax anniversaire de Vogue sax soirée la mën naa ne mais du anniversaire parce que anniversaire Wally xëjul Vogue mhm. mais juste gars yi ñoo koy waxee noonu rek comme suba la anniversaire am le 27 euh, ñu koy defee Vogue mais Wally anniversaire am xëjul Vogue mais di ci sant yàlla xam naa ne dina métti nag parce que bu xoolee vidéo yi ko yaayam di ñaanale ak soxna muumi ah vraiment yaramam dina daw man xam naa ne jour bi dina jooy man xam naa waal dina am lu mu ci bu jooyul ci rongoñ dina jooy ci xool parce que man xam naa waal euh, kon di ko sant yàlla di sant yàlla rek di wax ne anniversaire bi di ko ñaanal incha allah mu fekk ay adiat at te di xam ne incha allah loolu yàlla dogal ñaanal ko bu baax a baax te barke baayam topp ko ak barke yaayam ci barke alxuraan karim en tout cas tey almadi dina na wàcc incha allah ci kattanu yàlla. trois jours yëpp na wàcc incha allah. tey lay ubbi tey tey tey nee naa leen vingt trois heures ku fa fekkul jarul ngay ñëw parce que gise ferme la ku nekk xam na ne bu dara xewul ngay def gise ferme. Mhm. vogue kon bu anniversaire Wally Seck ñëwee tàmbat na encore mu toog trois mois tëggul bu ñu defoon entrée cent mille francs sax du taxaw. waroon na entre vingt mille francs nag rek vingt trois heures ku mu fa fekkul jarul ngay ñëw. Mhm. parce que xam naa loolu man dem naa studio li mu liggéey état yi trois mois yi Serigne xam na ne xëjul vok li mu liggéey pour jox ko fant yi ci lu bees waxuma ci lu bees parce que Serigne Saliou xëjul vok waaw ah, bëggoon ñëw de ndax nag fi mu ne nag dafa xawoon raar tuuti rek nag waaye xale yi nag xaw nañoo buuxante ba fi mu ne nag ñi ngi tànn ñi ngi challenge ñi ngi au sommet xale yi daal fi mu nekk nii moom gëw ma ne bu Wally ñëwee nag ah pour mu imposer waat boppam nag hmm, faa mu liggéey de. Wally amul imposer boppam Wally liggéey li muy liggéey moom. Ah, almadi waali moo am këyit titre foncier bi barke Seexul Xadim almadi ci soobis waali moo moo téye këyit titre foncier bi ñëpp ña fa nekk këyitu baay la ñam kër xam nga daa am ak délibération ak affaire yooyu waali titre foncier moo ko moom almadi te bu ñëwee ku toogoon ci seesu jàmbur na nga jóg xam ne seen papa ñëw na <laughs> dama lay wax lu leer ah, ku toogoon barke Cheikhul Khadim loolu jarul wax at na koy wax ku nekk xam na ne Ndakaaru Njaay almadi Wally moo ko moom titre foncier bi kon ku toogoon ci sa këru jàmbur wala ku toogoon seen jàmbur na nga defaraat jël fa la nga moom febeere gaaw dem xam ne Wally ñëw na comprendre nga borom dat yeeg boroom dimanche yeeg ñëpp mais xam nañu seen baay ñëw na nañu toog régler xam ne ñetti date yi démb rek dem na studio xam naa li tax ma wax ko barke alxuraani karim seen baay ñëw na te Wally samedi ak dimanche lay commencé waat teg tànkam ci showbiz pour woy waale woyagu doon ba maman Diakhe gën na àdduna la doog teg tànkam ci showbiz mu ngi doog di woy barki alxuraan. dafa mel ne dafa mel ne Idali su ma la déggee dafa am loo xamante ne euh, da nga koo gis wala dañ la koo dee dafa mel ne dafa am loo ñuy kàll ne. waaw lu ma leen di kàll mooy dama dégg rek ay rumeurs yu bëri souvent ay xam nga ngeen di tudd benn artiste ki def dimanche affaire yooyu xam nga temps ñu ngi koy ci lañ yaaka wax ay affaire yooyu may la d' accord suñu raq la suñu lépp la. xaar rek suñu raq la suñu lépp kan suñu non yaa wax. mi ngi yëngu non Momo sama rakk la bu ma jaaxasee ak Momo Dieng. Momo ndaanaan la ndaanaan la mais ku xam-xam ne képp kuy ndaanaan bu waali wootee yow da ngay xaar ak ku mën di doon man waali laay ñaan yàlla mu sut ci artistes yi muy keneen na keneen Momo sama rakk la mais ñoom ñëpp nañ dal xam ne ci kattanu yàlla bu waali sekk ñëwee la centre du peuple borom almadi ah ñu xam ne lépp ñëw na dimanche yeeg lépp incha allah maa ngi koy ñaanal yàlla ñu ja am ci jàmm ñoom mais seen baay daal ñëw na nañ xam ne seen papa ñëw na seen grand frère seen lépp ki nga xam ne mooy seen xalifa général ci musique sénégalaise bi ñëw na te moom day jël li mu moom. Mm-hmm. je comprendre nga ñoom ñëpp nañ xaar xam ne duñu amul dara nañu xaar nañu yaru comprendre nga ñeneen ñi tam ñi nga xam ne ñooy tëgg vendredi xaw ma lan fële ca faay ak affaire yooyu. nañu xaar xam ne seen baay ñëw na dañuy bañ ne duñ seen baay benn yoon nag mais bu ñu nekk bu ñu nanguwul. waxi bàyyi nag wuñ ko de parce que xam nga ba léegi nangooguñ moo tax ñi li am ah, am moo tax ña fay daw di ñëw gis nañ ko. Mhm. sëñ Bada Barkileem ñëw na. bu ñu nanguwul ne seen ñooy seen baay moom ka bañ ne seen moom du seen baay du ñu baayam moom day ñëw aw si ginaaw mhm. barke Seexul Xadim. yaa waaw xam naa li ma la wax moo tax wax ko. Mhm. ni da ngay jox nit cër sa baay bu la motee baay danga koy jox cër. ku la mënul sa baay mën la sa baay la waali seen baay la ci musique sénégalaise bi mënu leen jur quand mais ci côté showbiz musique mooy seen xalifa général mooy seen baay nañ ñëw di jébul di ko jox addiya moo gën mooy woon yoon voilà. ñu jeexal miin nañ nag li nga xamante ne moom mooy ambiance ci kaw seen waali ku ne Banaya ne njàpp zoo rek ne mbay si Ndiaye si ginnaaw ak Fallou dara du yomb waaye côté invitation côté spectacle tamit ndax am na ay surprise yoo xamante ne peut-être mun nañ ko fa xaar. jaaxa euh, nee la tey di nga gis lu garaaw son lumière ambiance sànce bu rafet macha allah tey di nga ko gis ci kaw seen waali balaa ko ne Ramadan dañoo mën kaw seen. voilà muy loo xam ne Ndeye Ndiaye Banaya ku nekk xam na ne mook njàpp ak kii dañoo macha allah dañoo ñëw nekk ci équipe bi nee naa la li ñu def Gambie li ñu def euh, Guinée euh, du dara xam la espace amul ba pare temps bi mais Vogue Vogue la ñuy gis lu garaaw incha allah ci kattanu yàlla bu soobee yàlla Vogue la ñuy gis lu garaaw ci kattanu yàlla euh, soo boo xam ne son et lumière ak Wally Ballago Seck comprendre kon yaakaar na ñu muy loo xam ne vraiment dina daw yaram parce que ku xam-xam ne Wally Ballago Seck dafa jox cër ay musiciens dafa jox cër ay fecckatam kon nee naa leen incha allah vogue ku ko tardé jarul ngay xoolati Wally Ballago Seck am na ñu jógee États-Unis mhm. France fu nekk dagg bi ñëw spécial pour trois dates yi parce que trois dates mosu fi am Wally Seck rek moo fi def trois dates ci Dakar amul keneen mhm. li ma la ban artiste moo ko mos a def ci Sénégal mhm. li moo ko la wax koy def moom trois dates yi. moo ko fi def. mu fees dellu trois yëpp. moo ko fi def encore ci dëkku jàmbur yi. moo koy def ci dëkku jàmbur gaab def na ko Gambie def na ko États-Unis beneen artiste ñemewu ko kon gars yi nañ nangu ne mooy seen xalifa général ci musique mooy seen baay. loolu la yàlla dogal voilà. ñu gis nag international français bii di Paul Pogba daal di ñëw rek ci fi nga xamante ne moom mooy Sénégal waaye dafa am benn vidéo boo xam ne dañ koo gis rek mu ànd ceeg Maria Sine Idda lii mën waaw waaw foofu dama ci dama ci sawar a ñëw macha allah euh, waaye du ma la waali ku ko seet ci du ma la gulet ci mën doon ci monde bi nag xam la moo tax mooy le centre du peuple mooy le centre du monde maa ko wax mooy le star képp ku ñëw Sénégal foo mën di nekk ah da ngay bëgg a gis waali xam nga Pogba mosul ñëw Sénégal ñëw na dégg naa dem Tiwaawoon image yooyu kenn gisu ko dem Tiwaawoon bi mu ñëwee dem Tiwaawoon def li muy def ba pare. dafa ñëw ne Sénégal ne Wally sekk laa bugga dem këram waxul président Diomaye laay dem këram wala ministre usman Sonko wala keneen wala keneen dane Wally Seck laa bëgg a dem këram ñu andi ko kër Wally image yaa ngi noonu mu toog ak Wally ne ko dama bëgg dama yàgg a déglu say musique sa musique say way mais vraiment daf neex kon Wally gars yi nañ nangu ne Wally mooy star non dafa waaw international star planétaire la bépp star bu jógee foo mën a jóge ci réew mi boo ñëwee Sénégal da nga naan kër Wally laay dem ñu ngi fi keneen a ngi fi keneen a ngi fi booyu ndaw yaa ngi fi borom bu ñu fell yi kenn demul seen kër amul benn benn pro Sénégal sax bu dem seen kër comprendre nga kon nañu nangu maanaam gars yi nañu bàyyi wax man bàyyi woon naa sax wax ju bari xam la moo tax mais toujours rek mooy pour fans yi nga xam ne ñoo sori te comprendre ñu le meilleur c'est le meilleur le meilleur moom la yàlla jiital te xam na ne yàlla moo ko jiital mu nangu ko dañ koy ñaanal jàmm ñaanal ko salaam Pogba nag ñëw na fi mu war a ñëw nga ni mu kontaane bu ñëwee Wally teral ko tatagal ko vraiment jox ko oto ne ko dee ko doxantoo. voilà dee ko bu ñëwee Sénégal fii mën na luye oto wala affaire yooyu mu ñëw wàcce ko ci parking bi won ko ko xoola oto yëpp mu xool mu jox ko oto zéro kilomètre neef ko dee ko doxant say course ba bëgg a ñibbi vraiment loolu cër bu ko gën a rëy amul waali dafa xam cër. merci loolu la parce que dafa ñëw jëmul kër kenn ñëw kër waali kon waali foog mu jox ko cër boobu te di ngeen xoolaat beneen surprise ci waali nee naan waali defagul ci musique ci lenn ci ci joxe alalam waali lépp lu doomu aadama di am ci kattanu yàlla dina ko am te dina ko bokk doomu aadama yi waali yàllaa ko defal loolu voilà. balaa ñuy jeexal ñu bàyyi la nga wax sa dernier mot su ko defee ñu yëkkati jotaay waaw di sant yàlla di sant yàlla di julli ci nit bu baax a baax di wax euh, maa ngi santaat yàlla bu baax bi ma fekkee tey sama jour anniversaire maag waali balaa ko sekk benn jour doxul suñu diggante kon waaw loolu di ak maar la ba doxu ci chaque année ni lay demee barke alxuraani karim démb ci guddi rek dem naa këram vingt une heure fekkuma ko fa Baye Zal kese laa fa fekk vraiment euh, euh, mais xam naa ci kanam tuddi incha allah départ am incha allah di ngeen gis incha allah maa ngi fa parce que dama dama fa war a dem mais di wax tam profité ne dama dem keroog euh, studio bi mu répété demoon naa yu bëri mais dama fekkaat studio ba changé waat barke alxuraani karim Baye Zal laay wax rek ci moom tuuti rek Baye Fall la te dafa ñëw ci Wally Seck nekk Baye Fall nangu Wally Seck wax na ko tamit bañ fa toogee mu ne Baye mu ne Baye Sall ci vidéo la ko wax ci Baye Sall ne ko gaynde ga liggéeykat ga te loolu dafa am solo te waali du ngaaka barke alxuraan karim Baye Sall tur waali du ngaaka mu def studio boo xam ne kër Waly Seck mosu fa am muy liggéey mucc ayib kon Baye Sall ku ko am waroo ko caaxaane ci mission yi moo tax borom buñ bu fell bi dafa nelaw Baye Sall ak Omaro ku ko am mënoo ko waroo ko caaxaane loolu moo tax duñ dem moo tax keroog gi affaire nilaar yi ñu def keroog Mame Ndiaye Savon affaire nilaar parce que en tant que stave en tant que stave nan ngay tëgge loolu tudde Mame Ndiaye Savon bés mu ñëw nga war ko accueillir jëli ko amul kayit amul benn carte amul dara ba vidéo di ko ne doo defaat affaire dof affaire manque prudence bi affaire yoo xam ne ndeysaan Ouzin Keita sax du ko def taxaw ci digg scène bi di xas ay vidéo am loolu c'est honte booy du dem ci musique foog mu changé parce que xam la moo tax label bi moo baaxul maa ko wax label bi. gâteau bi maa ngi koy daggee foog incha allah ci kattan yàlla wala biir kër waali sans dépend rek. dinaa la kër waali wala wala wala allah ci kattan yàlla. voilà. Euh, jërë ngeen jëf mbokk yi mi ngi noonu Idali Faramare lañ àndaloon ci waxtaan boo xamante ne rek spécial Wally Ballago Seck la woon ak li nga xamante ne moom mooy anniversaire bi su ko defee ñu jox leen. prochainement ci beneen gox ak keneen koo xamante ne dinañ sekk ak moom waxtaan si la wooy leen duñu topp si suñu ay programme di partager abonné like bu ko defee dara dul na ci suñu ay information si et d'ailleurs jërë ngeen jëf rendez-vous bi léegi voilà go sekk